murit taxawaat taxawaay ba ñu yoroon waaye lii ñu nekke du diine diine jot na Sénégal delloo siwaat ko àndaat nekk benn jox yàlla cëram roy mag ñi mag ñi nekkuñu di leen tagg ak di leen rëyal ñoom bëgguñu loolu kuy rëyal rëyalal yàlla te ànd ak ñoom ca loolu waaye senegal foofu gis royuwaay yi léegi ñi ñuy roy ñëpp du bindoon naa ko dama ko fàtte ñi ñuy roy du ñu royuwaay mbokk yi royu waay day ñeme fu palaasu yàlla nekk royu day nekk ak nit ñi génn xool li am ñu di ko wax bu ñu demee ba alquran ñu di ko fompoo ci duus fii ci alquran wallahi gisuloo ko gisuloo loolu wallahi ñu ngi fi fompoo alquran ci duus nee nañu alquran daf fi war a jóge alqadaau ala alquran fa tabaarakallah yooyu yooyu bu ko defee nag Sénégal nañu dellu si yaakaar yaa ngi fi ba tey jëf yi demul jëmm yee fi jóge waaye jëf yi yàllaa ko santaane woon kon ñu ngi ñaan bépp Sénégalais bépp jullit ñu génnaat nee nañu léegi jullit yi kalkurra asibiyaanu yàlla yàllaabuna bi bu ko defee nag li ñuy ñaan rek mooy waxuñu seen xaaju Mansour pour mu nekk mu yéem ñu dañ koo wan wax wax ni mu daan jaar ak fi mu daan jaar pour ñu am lu ñu roy ba bu ëllëgee ñu mën a mucc am nañu ay royuwaay kenn du jëggaani royuwaay li fi nekk bu dul royuwaay daneen du waay bu ko defee nag jullit yi nañ dellu siwaat tuuba ñëpp nañ ànd nekk benn jot na kalimatullahi war a nekk hiya waaye kalimatul ladina waaye léegi kalimatul sufla mooy bu ko defee nag loolu man taxna ma dugg ci waxtan ñun ñëpp ñu andat muy Sénégal di kilifa yëpp andat def téelewat l'islam l'islam mënu fi jóge waye mën nañoo sagan ba dootul nek ci ñun ben way bind na ni aada aadaul islaami mooy abnaul islam non bi gëna bañ l'islam tay moy ñi juddo ci l'islam tay tudde seen bop julit ko defee nag bëggoon naa ko tàmbali ca commencement ba ndax sëriñ Babacar nan la daan yare nit ñi nit ñi nekk ay jullit xaaj Mansour jaar foofu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz gis nga bi ko góor gi ne aidnil qalba usika wasiyatan an ka tashfi fi zamani alladi amma alfasadu bihi wala tara ahadan fihi yu kon nag fagudda tarfaka la tafxas axi abadan wala takunan tuaadi kon kooku jaaral na Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ci yoon bul noonu ku la noonu bul geesu it سيد حاج منصور نانا غوردو غيس ني نكو لا تخ مون ان الكريم غيور غوردو فير تي لا كو تخ جو واي سينغال ديمو ني تكوي ديم ني نلا هي بو تخاوي دو ديم بو كو دافي نا ني نيانات نييب واجوري سيرتو واجوري سيرتو واجوري لي خيو بو ني جاب سيد الحاج مالك داف كو ديكو بوغ لاي سيد الحاج مالك دغا سينا ريسبونسابيلتي سين بابكر دغا سينا ريسبونسابيلتي حاج منصور مي في جوغي دغا سينا ريسبون دي نين لام واخ سانخ ني بامو ني بايام افيد بسيطتي لومو تي مودي بامو كوني روت النفوس لدين الله تربيه ابليس ما ابتسمت منه المكايد دافكوني عوت في النفس عادات صدق لقد كان لكم في رسول الله لمن كان يرجو الله واليوم وذكر الله ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا وصدق الله وراء وما زادهم الا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ومنهم وما بدلوا لتخ ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين إن شاء كون كان يرنت باني في أسكنو تي كلفة تخول دم يرنت يالا نوح دفني دفني دوم جي يا بني كب معنا ولا تكن مع الكافرين منك سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ويوحل بينهما الموج فكان من ال وقيل يا أرض ابلعي ويا سماء waaw waxiidal maa wa qudiya al amru wastawat alal wa qiila mu ñëw ni ko inna nii mu ne ko innahu lu tax innahu xayru kon fala ñu bëgg ñu yonente baa ngoog yonente ngoog ñu jël bëgg a jël wala yu di ko yem ak yonente ba bëgg a bàyyi lépp lu yàlla santaane wéeru ci moom bu ko nangoo nax na boppam Sénégal nañ wàññeeku Sénégal nañ wàññeeku ligay kat bi bu xasse ba ligay jot nenañu demal sa bureau bala nga fay lek ben seconde bo ligay yo na la fek waxtu waaw amurukum an tawaddu al amanati ila wa idha hakamtum bayna annaasi an tahkumu inna allaha inna allaha ka defé nak yàlla yëgul yàlla yëgul juddu yàlla bopam la yëg yàlla ligay luul kenn pour bopam waaye teg nañu ci yoon inna hadaynaahu imma wa imma kon ku des kon mbokk yi nañ dellu siwaat Sénégal nañ dellu siwaat dellu siwaat ci mbokk gi tariqa yi waruñoo tàqale ndax kii dafa wax ni ak turqu kulluha ila rahmani musilatun musrikatun yaa jaani keele ni sawaawun intama ilal aw intama li ahmadat in kulluhum qatan alas lu andi tàqali ko mbokk yi Sénégal góor di jigéen góor jigéen góor gu nekk na dellu si jigéen ju nekk na dellu si jigéen ñi it nañ bàyyi xel ni am na lu ñuy wax ngeen defe ni ñu ne waaye yàllaa ko wax yàllaa ko wax yàllaa ko wax mooy muuraay gi muuraay gi na dellu si muuraay gi na dellu si muuraay gi na dellu si ku deful yëfi yàlla nag yaa xam waaw bu ko defee nag euh, loolu nañ ko wax mbedd mi na rafet jàkka yi nay fees te yàlla di tax jàkka bari nañu see jullee ah. Ah. Abdul Aziz àdduna tukki waaye tu bara bérébu tukki la ah, boo demee aéroport sa bagage ëpp nooy def da koy freté ba pare fay kon jëm yi ci kaw la jëm wala ci suuf kon prêté ko ci jàkk ji te nga dem wax ak sa borom boo dellu see mën a yëg waaye boo boo ko sampul ci jàkk ji génnoo jàkk ji doo gis lu dul ñi ci jàkk ji doo dégg lu dul ñi ci jàkk ji te kii wax ak yow soxla na la moo tax boo geesoo mu ni la ila man taltafitu ila xayrin min ni am da am ku ma gën bëgg tax na di ko gees ci biir julli gi kañ ngay àgg ci yàlla boo boo sujootee waaw bu loo fay wax

ko defee nag maa ngi jéggal waaye Sénégal nañu taxawaat defaru nañu taxawaat defaru am na ñoo xam ne fexe woon nañu ba ñu nekk des mauvais fuñ ci toll buñ demee ni ba George Bush naan Sénégal Afrique la wax moom la ñu gën a déggal ci yonent bi moom George Bush waa ji indi lay nii fu ñuy takke sëy fu ñu koy reconnaître fu ñuy miraase fuñ koy reconnaître kon yàlla maanuwul ah waa ji teg wax loolu ba fa ni fa man tattabiuna wa man tutiuna loolu la ñuy teg abouche am muhammad waaw sëñ Lamine baax na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم